kàdduy cant yi la sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké jottali ci délégation bi nga xam ni ñu ngi bàyyikoo réewum ci ci ni teew si ci màggalu Tuubaa gu mag yi ginnaaw bi ñu bàyyikoo ci cérémonie officielle bi agsi nañu siyaari sëñ bi waxtaan ak moom mu jébbal ay àddiya ñaanal leen ñu wone lool seen mbégte ci jaxasoog waa ak dikk siyaari si Serigne Tuubaa ginnaaw bi ñu bàyyikoo ci sëriñ bi ci la leen jox ndigal yabal leen ci daara Hizbut Tarqiyyah ñu ànd ak Serigne naa Mbacke di kenn ci ak njabootam ak Ahmed Saloum Dieng Serigne Atou Diagne di jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah moo leen gatandu dalal leen tàmbal leen woon nag liggéeyu daara ji. sant yàlla ci ñëw gi mu ñëw Touba ba am ñëwaat am yàlla def mu agsiwaale ba fii sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax a baax. Allah subhanahu wa taala ala wusulikum ila ووصلكم إلى هذا المكان هذا المكان الذي هو مقر لأتباع الشيخ بامبا وهو تجمع إسلامي صوفي اسمه حزب ترقية والأخ الجاني هو زعيم هذا التجمع leeral sax li nga xam ne mooy fii ni mu nekkee kër sëriñ bi ak barabu sëriñ bi ma ma ma jóge ca moom li may jëkk feeñale sama cant mooy nañ jógee fañ jógee ni muy sori sori biñ ñëwee fii dafa mel ni ñañ bàyyi ginnaaw lañ fekk fii يعني قبل أن يدخل في تقديم هذا المكان الذي نحن فيه وهو تجمع كبير يشمل مجموعة كبيرة من أتباع الشيخ محمد لمين يريد أن يرحب بكم في بيتكم ويقول لكم أهلا وسهلا بكم ويقول لكم أنتم تركتم شيسان ولكن أنتم ما أهل شيسان هنا في السنغال mu mel ni rek ñoom yoon fañ jóge yoon yañ fa bàyyi ak biñ agsee fii yoon yi ñu fi fekkaat muy continuer ñoom ñaan ñëpp ñu ngi daje ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak yàlla sunu borom ak ngërëm seen ngërëm لأن طريقة التي تنتمون إليها في شيشان وهي الطريقة الصوفية الخارجية وطريقة المولدية التي تستضيفكم اليوم في السنغال هي كلها طرق تخدم الدعوة الإسلامية وتنهج نهج سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا نحن على خط واحد وعلى هدف واحد وعلى أمة واحد وعلى ملة واحدة mel ne kon tarixa yëpp dafa mel ni ñu ñett ñu bokk ndey ak baay kii xees kii xaw a xeereer kii ñuul kenn mënu cee tam sa morom kenn mënu ci xas sa morom إذا كانت تلتزم سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكلها زي أشقاء من نفس الوالد ونفس الوالدة هذا قد تجد هذا بسرته أبيض وهذه بسرته متوسطة وهذه بسرته ko am na lu tuuti rek lu ci dolleeku mooy uh, ki ñu fekk si fii tey muy sëñ Tuba moom Euh, di liggéeykatu yonent bi yonent bi may na ko mu joxe yëf yi boppam murit waaye may na ko mu joxe wirdu xaadim may na ko mu joxe wirdu beneen ko mun ko mun ko am ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon mise de Cheikh Ahmad Bamba waxu <clears throat> masi tariqa al muridiyya annahu rabba atbaahu ala asas kullu waxid euh, min atbaai indahu xorriyat al ixtiyaar fa Cheikh aydan indahu mise fi taqdim الورد القادري والورد الشاذلي والورد المريدي لأتباعه يعني ليس مقير على الورد المريدي فقط هناك أتباع شيخ بامبا ما زالوا يلتزمون بالورد القادري li ci dolli ko rek mooy ñoom fa ñu nekk ni mu sore sore sore sore liy dëggal li ñuy wax nii mooy benn karaw ci seen yaram rek bu ko nit laalee ñun dañ koy yëg fii دليل على أن يجمعنا أمة واحدة وهدف واحد ومصير واحد يعني أنتم رغم المسافة البعيدة وأنتم رغم بعد شيشان فكل شعرة واحدة في من شعركم إذا لمس هناك سيشعر به أهل طوبى لأنه جزء منا amee ñu ngi ñu ngi delluwaat ci yàlla suñu borom ñuy xam ne dana leen sowe dana leen taxaw. waaw nag laa tax na min mashakil fa nahnu huna nad'u lakum wa naqif ma'akum wa nad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yarfa'a zalika minkum jeexal ne ko balaa may day tëj bunt boobu danaa ko waxi tasawuf qabla an yaxtatima kalimatahu yuridu an yatakallam qalilan an tasawuf ne ko ñetti junni malayka yi nga xam ne ñoo wallu suloon julli ci ci badar delluwuñu ñu ngi fi ba tey salaasa alaaf euh, malaak malak yani kaaru kaaru hum lazina anqadu ahlul badr fa haulaay ma zaalu mutawajidun vigilant lañ te li ñuy xool mooy seen liggéey yëpp mooy drapeau islam bañ laal suuf muhimmatuhum alwahida hum hada hada haulay almalak alladina anqadu ahla badr muhimmatuhum alwahida huwa uh, almuhafaza ala rayat alislam wa rayat sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lu métti métti bu kenn jaaxal ورغم الصعوبات التي قد نعاني منها وقد يعاني منها أهل أهل الدين وأهل التصوف لا يجب علينا أن نخاف أو نتردد يجب أن نذهب إلى الأمام. ñooñu nag ay soldaar lañu. الجنود مجندة من سين كان militaire fu mu nekkoon كان لديهم معسكر في مكان ما yàlla daf leen may ñuy xam wax nañ ni baytul maqdis la كان معسكرهم حسب قول بعض بعض بعض أهل الذكر من أهل الكشف قالوا أن هذا هذا المعسكر كان يوجد في بيت المقدس léegi na foofu léegi na انتقل وهناك عارفين بالله قالوا بأن هذا المعسكر انتقل من هناك ci àddina bi fa soob suñu borom وهو موجود في إحدى أماكن الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهم na seen xel dal huwa yurid an yutamminakum wa an yurahib bikum wa an yaj'al yaxluq fikum shajaa wal jura naam ala bi zikrillah tatma'innul qulub mooy la sunu borom subhanahu wa taala daa wax ni maanaam jaam yi li leen di jox kàttan leen di jox ak dëgër leen may ñu ñuy dem ci kanam mooy saxoo tudd yàlla ak dund tur yàlla. nekko ko ne ko ne ko soviétique yi. Mhm. nekko soviétique yi dina ne soviétique yi. Mhm. dinañuy wax ne raad na Elise Merte muy pavé ji mais paasewul seen te paasewul seen territoire. <laughs> moom ne leen ne ñoom dinañu wax raad na Elise Merte muy pavé ji. Mhm. seen raad na. seen patrie. mooy le tout le monde musulman. gal arruus mooy la patrie ou la mort nous vaincra mais passé passewul seen territoire gal arruus innahum shi'ar yani annahum masalan yuhafizuna ala baladihim wa ala hududihim ولكن انتم اهل الشيشان واهل المسلمون في الشيشان ليس لكم حدود انتم في كل العالم انتم اسرتكم موجوده واهلكم موجوده تشيني مكه المكرم تشيني لانكم من اهل سيدنا صلى الله عليه وسلم الشيشان ان شاء الله سينتصر اسمه وسوف يعرف في العالم بحكم bi amnillahi wa bi hukmi tamassuki bil islam wa tamassuki bi sunnati sayyidina sallallahu alayhi wa sallam shukran jazilan shukran pour ñaanal seen président bi xam nga kii bàyyi la ci moom moom ñaar fukki at fanweer ak ñaar la mais tama fatama jumaa ji gën a rëy ci Europe xam ne ne ko ñun tam ñu ngi ñu ngi ñu ngi dugg ci ñaan googu di ko ànd ak ñoom yàlla dëgëral ko ndax dëgëral yàlla dëgëral kooku mooy dëgëral ko fa huwa bismihi جميع أتباع الخوارج من هذا التجمع الخوارجي يدعون لفخامة رئيس رمضان الظروف أن يقويه الله وأن وأن يجعل له يعني الأبواب كلها مفتوحة وأن يطول عمره حتى يكون في خدمة الدعوة الإسلامية وفي خدمة المسلمين في الشيشان وفي خدمة المسلمين في الاتحاد الروسي كلها. léegi nag ñu fekk fi nag ñun ñii tey jii. di ay taalibe sëriñ bi. nga xam ne kër gii mu nekk tey benn la ci kër kër sëñ Baara bii. waaye ñu fi nekk mooy ñoo xam ne bi ñu tubaab bi colonisé. Eh, jàngal ñu ay tubaab ba defe ne noppi na ci ñun jële ñu sëñ Tuubaa jël ñu indi ñu eh, def ci ñun diine def ci ñun lépp ñu boole ñaari xam-xam yi ba te tey ji tubaab duñu gis fu fenn ba defe ne alalam ne يعني هذا المكان الذي تزورونه هو عبارة عن تجمع صوفي مريده مريدي اسمه حزب ترقية وهم كلهم مثقفون بالثقافة الفرنسية يعني كانوا يدرسون في الجامعات وفي الثانويات ويعملون في المصالح الحكومية ولكن هم الآن بحكم تربيتهم للشيخ وتفانهم في حب الشيخ وملازمتهم إلى, إلى, إلى, إلى, إلى أبناء الشيخ أحمد بامبا وأحفاده أصبحوا خدام الطريقة وأصبحوا يعني يفتخرون بالهوية المريدية واصبح المستعمر الفرنسي الان اذا راهم او راهم من يتاثر بالثقافه الفرنسيه يتعجب عليهم لانه لا يجد فيهم اي اثر يدل على العصرنه ان شاء الله ترجم هذا الشيخ ترجم nekk loolu rek doy na pour mu xam ne. وهذا يكفي mu xam ne fii jàngal nañu formation moderne nekk science ak technologie tubaab fakal la ñu ngi sant yàlla waaye nag li ñu bàyyi woon jàngaluñu ko loolu Serigne Touba jàngukaay yi bari na waaye moom la ñu tànn moom ko defal

дуухарца амырца шей ахмад бамбауи цун гулх дариах хуз хабиана хуз болох бишбар чол шей белх белх дай больш и бог добьюш тяс бодр бог кибирш отсул тигдеша дешт отсул тер культур хатнас хболу فدوغة تقل الآن تخيسة بالله أزغوك يخوض حباه كرتات بالله شن دليل قرآن آية دو أستعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الله خيرا يشرع صدره للإيمان yàlla subhaana wa taala daal yàlla bu la bëggee baaxee dafay ubbi sa dënn. saxe saxe wa huwa yaxluqu masahum wa rahmata asrihim saqaf rahmata allumihim technologia wa taalim kullu anwa al ulum yani hum al aadaa wa fihim atiba wa fihim muhandisun wa fihim technologiyun wa fihim fanniyun في الكهرباء ولكن رغم كل هذا كانت تنقصهم يعني التربيه الروحيه وهذه التربيه الروحيه اخذوها من من افكار ومبادئ المريديه وهي مبادئ الشيخ محمد ginnaaw waxtaan woowu ak daral jàmm googu nga xamante ni jëruñ daara Hizbut Tarqiyyah def na ko ànd ak délégation ci waxtaan bi yaatu ànd nag ñoom wan nga xamante ne moo nekk ci daara Hizbut Tarqiyyah ñu ne lépp di ay barabu xam-xam ak barabu liggéeyu Serigne Touba ci fan yëpp. fii xale min min abiyaat Cheikh Mouhamed. jërëjëf Nassou lu tax ñu def place yu bari pour fii pour ay jigéen. suwar suwar mën naa. من أبع شيء أحد أبع شيء من درس الله يفعل كان أحد أحد مولي أحد مولي بسم الله لحل يا شيخ وعامل الله أنا قبل من فولي قبل أحد مقام هذا الشيخ محمد مرتضى اليوم الأخير هذا الشيخ محمد العمد الكبير الخليل هذا هذا ابو ادم وشيخ محمد النبي ba tey ñu ngi ci barab yi nga xamante ni moo nekk ci daara isbu tarxiya ñu di leen ko woon ba ci barab bi nga xamante ni moom la ñu tuddee sarsara te bi ñu fi ñëwee ñu am sikkar yoo xam ni def nañ ko ci ngir feesal ci seenu cant محمد وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله قادري طريقة شهبلو سنغال احبل مريد اشبلشو احتوقا شدرنا الحمد لله الحمد لله Geldin çodikanna elhamdülillah Elhamdülillah الحمد لله الحمد لله واتك ومرش الحمد لله الحمد لله أدري طريقة مريدي بركت أحط وصنة آخرنا الحمد لله الحمد لله Dağdıncı da kocu dikenle elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah شيخ أحمد بامبا بيركتتسا كنت حجي إلى السخني بيركتتسا أحطو طريقتتسا إرسي درنا الحمد لله طريقتي طريقتيهم وحمد الله تعالى على هذه الأمور السعيدة dafay doon sant suñu borom subhanahu wa taala ci boole gi mu boole ci jotaay bi ñaari góor yàlla mu Kunta Xaaji mi nga xam ne mooy seen sëriñ ak sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mooy sëriñu murid ci àdduna bi yëpp boole gi leen yàlla boole ci jotaay bi ci bis bu tedd bi moo doon sant yàlla gaala gaala huwa aydan yaxmadullah subhanahu wa taala ala hada almakan allazi uqima fi hada tajammo wa yaxmadukum wa yashkurukum ala hada al amal al suufi al azim allazi qumtum bihi wa nahnu al an yani kunna nasma bi shishan wa bi ikhwanina al muslimina fi shishan walakin allah subhanahu wa taala saadana wa waffaqana an jama'ana fi tawilatin wahidatin Mashallah. Hastan besha u khuda okkom okmetiga ošak jahta. Hastan beš ošak gin ošak hanakil. Ah olug ala ella sot yah isht ve nohtishna şeyna tunah yahlanna berkitlerna doldoğuş. Haski şuşa. Mashallah. Narju. Narju. Udu lahu Allah hada eren huwa huwa batal. يقوم بالكثير في كل ما يقوم به يريد به الخليفه المريديه هو يقوم به تعرف كل الضيوف الذين ياتون الى طوبى هو الذي يقوم ب هو الذي يستضيفهم ويوفر لهم الغداء والعشاء والمشروبات والفواكه كل شيء على حسب سئل النبي عليه الصلاة والسلام من خير الناس فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس من أنفع الناس <laughs> dama ko doon wax taxawaay gay taxawaay gay taxaw ci yoon wi mu ne yéen di salaa sallam dañu ko ne ku gën ci nit ñi mu ne ku gën ci nit ñi mooy ki gën a jëriñ doomu aadama ki leen di servir mooy nag kon na nga jàpp ne yow ci ñoo nga bokk <laughs> waaw ba tey ci wàllu nemmiku barab yi nag ci lañ agsi ci fii nga xam ne ba tey ci daara Hizbut Tarqiyyah la muy ba joxe fi jullit tisbaar gi nga xamante ne fekk na leen fii sikkar fii soog a jàll nag ci barab bi nga xam ne fa leen dal الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله قدير والله غفور رحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والد حج آمين لا إله إلا